mu doon kenn ci ñi nga xam ne nag yóbbu nañu démocratie fu kenn dootul natable loolee nag ñi teewe woon waajtaayu aji dem gi bëri woon lool fii ci l'hôpital bu principal firnde nañu ko ci kàddu ña mu sëkkaloon liggéey bi waaye politique yi ak sax ñenn ci ay jege ñaaleem Babacar kenn la woon ci wàll ba mu doon yëngu. Babacar ku dëgg ci li muy def la waaw deman na ci di jël ay yëfam. di ko ci kër gi loolu nag kilifa bu demee ba def ko lu ñu man lu dul gërëm ko nee am nañ nag ci moom yaakaar am nañ ci yaakaar mooy lan ci ni mu doon doxalee ci àddunaam noonu lu leer la woon lu ñëpp xam la woon dem bii mu dem nag bàyyi na group site communication

ba jël seen responsabilité ne dañuy entreprendre ndaxte Sénégal pour mu gën dans avancer ci démocratie ci presse il faut que la presse soit libre il faut ñu am presse indépendante moom ak ñoom Sidi Lamine Niass Abdoulaye Bamba Diallo plus tard ñoom euh, Mamadou Oumar Ndiaye ak ñeneen ku toute la bande bi ñu doon wax ba tey gi Babacar Touré Nous ñu nag ñun presse muy les jeunes comme les moins jeunes œuvre bu am doole héritage bu am solo loolu nak nañu fexé loolu mu bañ ñoo réer. jëwriñ bi ñu dénk wàllu caada ak it communication di Abdoulaye Diop nag moo fi teewaloon gouvernement bi andi ci ak ki nga xam ne moo di Seydou Gueye Samba si ak it seen yeneeni nguur gi. si.

On jaale ñoo ne sénégalais yëpp mu les à mu général des Mourides toute la presse sénégalaise ici présente que Babacar ñëpp ko le plus je ne ñëpp ko bok présence même ambassadeur pour Guinée Conakry kilifa la woon nit ku jëriñ réew mi may jëriñ nit ñi yàlla mayoon ko mu xarañ ci wàllu journalisme am yu bare yu mu fi bàyyi euh, donc nit ku mag la woon nit ku baax la woon nekkoon magu ñëpp nekk rakki ñëpp nekkoon nit koo xam ni euh, dundam daal amoon na njëriñ yàlla na ko yàlla teroog yërmande xaare ko aljana Sénégal la ñàkk ndaxte ku mel ni Babacar bu ko réew mi amee enrichissement la bu fi jógee euh, ñun ñëpp a ñàkk donc li mu def ci démocratie li mu def ci liberté mais li mu def it ci dex dox diggante yi ba yëpp baax parce que nitu jàmm la woon nitu consensus la woon ci wàllu liggéeyam yàlla mayoon na ko mu nekk euh, koo xam ne xalimaam euh, dañ daan yàkkamti mu bind dara ndaxte li muy bind day wér li muy bind xam-xam la te li muy bind dafay am njëriñ. ñu bëri ci ñamu daan jëflantelit ñoom it teewe woon nañu waajtaay bii ngir rek feddaliwaat seen kóllëre yi. dañuy ñaan yalla gemmiñ bañ ko jitu ci bamélam ñu ngi koy jalé toute la presse sénégalaise tous les entrepreneurs sénégalais ñu ngi koy tous les patriotes au premier rang desquels bien sûr le chef d'État mais tous les chefs d'État de la sous-région parce que moi-même en tant que député de la CEDEAO je sais à quel point il intervenait discrètement dans la recherche de solutions dans la facilitation des contacts à chaque fois qu'une crise soit en Gambie en Guinée au Mali en Côte d'Ivoire partout Babacar Touré génn na àdduna jamono bu métti waxuma le corona a ses conséquences mais la problématique de la sécurité Le problème yi que nous mën remettre en cause beaucoup d'acquis dans nos différents pays je suis maa ngi journalistes entrepreneur ou patron de presse acteur public ni inspiré wu ci ku xarañ la ku jaar sud comme ñun euh, ay ci métier bi dina sud communication école la sud communication daara la bi la rigueur respect li ngay le culte de l'excellence maanaam loo def fait fekk ci yoon la jaar fait fekk également dina am njëriñ pour réew pour lecteurs yi pour auditeurs yi Babacar Touré di nekk aussi nit ku baax parce que tous ses collaborateurs ak ñu bari ci rek dëkk bi defal na leen li nga xam ne musul taxaw fenn wax ko. mu doonoon nag taskatu xabaar ci wàll ba mu jàng doon ci it ku ràññetlu Babacar Touré it homme d'affaires la woon. jiite na fi nag ci atum 2012 ba 2018 kër gi di CNRA màcc ci wàllu saytu liggéeyum tasum xabaar fii ci Sénégal moom kër nag génn àdduna ni ki ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet ñu fas yéene ko nag jébbal boromam foofee ca Touba bi nga xam ne fala la jokk woon